la une précision Talla Daff dem lañ ko rawale bu wax ji buñ ko mm. raay dañ ko rawale gis nañ ci vidéo yi ñu japp ko di ko rawale di yop problème APR du parti GIE la groupement d'intérêt économique loolu moy APR il faut dire les choses wax ko sax fay metti mais groupement d'intérêt économique la allez positionné woon gis ñu la bu baax wala ma groupement d'intérêt économique moy APR APR du parti fii France xam nga naa mooy tax ma APR parce que APR ci hmm. njëlbeen bi ni ko Sidi Fall waxé Macky Sall il a faussé le processus démocratique day jógee par Dakar ñëw imposer kenn bu ne Demba Sow la gars yi ne duñu ànd ak Demba vous mu ne Ahmed Sall gars ne duñu ànd ak Ahmed Sall c'est-à-dire que militants Macky Sall musul leen jox possibilité ñu fal que leen di faut le problème faut le fausser moi la partie mhm. parti bi kenn yàqu ko ku dul Macky Sall vous voulez appeler nous muy doxee c'est des factions un clan la clan bi mi ni nii le seul clan constant dañoo taxaw ku ñëw ñu ànd ak yow ñom ñom lay ñom ñolay fal ñolay xex ñolay ñoo enterré ñu xolat keneen Macky Sall ku muy imposé ñëw àndaat na ak yow tay xol boo tay moy mooy ban clan moy ban clan. mooy gis nga clan bureau bi ñan la ñom Emile Bakhoum la ay ñom euh, Cheikh Agne la c'est les mêmes personnes c'est les mêmes personnes ku ñew ñom ñolay accompagner ñolay accompagner ñolay xex ñolay ñoo enterré di xaar keneen mu ñewat parti bi GIE la groupement d'intérêt économique sur l'orientation politique, économique, sociale, environnementale, écologique du pays, c'est nga ñi nekku ci xam nga lan mooy intéressé waa Farba mm. euh, malade bi mu indi ñaata euro ci nekk ñoom daal séddoo rek il ne se retrouve que dans le désordre wax ko neexul mais loolu à am À APR pour mon parti. Le groupement d'intérêt économique les plus méritants on les a foutus d'or. prenons le cas de Ben Yaya et de Diabatel Sall Ben Yaya instant yu gën a fi APR ben yeeyaas foo ko woowee ci plateau moom mooy ñëw taxaw di défendre l'indéfendable mhm. il se continue à défendre l'indéfendable mhm. gis nga ba ñu monté bureau dañoo monté bureau ba mu jeex xam nga ku ñu jox communication benn dame boo xam ne xamuñu ko sax xadi caam benn ñu jël ko écarté ko non Abdoulaye Mbodj moo yore communication non mais avant euh, euh, Abdoulaye Mbodj benn ñu jël ko écarté ko nga fon dire militant nan lañ koy cest à que militant ils gis ñu seen bopp cest que tay ñi taxaw jiite maki ñi taxaw tay jiite fi parti Macky Sall bi hmm. militant ci bopam boppam ñu and ci ñooñu noonu di leen jiite dala daf mais dans une démocratie civilisée policée toi tu es parti aux élections sur les 54 bureaux de vote ici à Paris mais on t'a battu au lieu de remettre au lieu de se démettre de ses fonctions ne serait-ce que pour votre crédibilité et votre honorabilité ou respectabilité jox Kenen, parce que la, démocratie, en 2023, c'est la rotation des hommes et des idées. Mais le échoué mais jox nous sur le temps communiqué réunion nouveau bureau nouvelle équipe combative aussi aussi mais tu parce que les hommes ont montré leurs limites ici en France c'est ça la vérité. jigéen ñi ñoo gën a tëkku ñoo gën a taxaw góor ñi góor ñi lan nañu mën lan nañu mën parce que léegi ñëpp gis nañu góor ñoo nekk di xuloo coopérative bi ñëpp fa la ñuy jéem a jaar foofu la ñuy mais tey parti bi jigéen nañ ko doon jox jigéen moo ko war a gérer les hommes ont montré leur limite ils ne se retrouvent que dans le désordre des magouilles loolu moo am